se عسير يسير بي الجسد الذي غادني لا كريم علي معلوم يسير سكري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو شكور نزولي وتأييدي ويسير الرداء من الواسع الوهاب فهو النسير أميري لدى سيدي ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يبير أجاب قديما لخير الخلق وهو نسير يديرني الكافي به من أزل عدا ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبد خادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سوري وأيامي عدم لي سوائد بكوني عبد الله وهو السيد ستوري في الدارين مدهي محمدا بنزم ونزل وهو المهمسة بسوري كتاب الله وسنة التي بها أهتمي عمانا وقصور قصور خلق والأهل sooy bu Ndiaye di trésorier général bu regroupement des chauffeurs de Touba. tey ñoo ngi doon lancé projet bu ñu amoon ay véhicules de transport en commun ñu duppee ko yoonu jàmm di desservir Dakar ak Touba oto yi ñoo ngi jógee Dakar Touba si gare routière bi di desservir Dakar boo maraîcher. oto yi moom ay ay ay véhicules yu confortable la ñoo ngi nekk ay douze places. onze y compris chauffeur bi muy douze ay véhicules yu confortable la am ceinture de sécurité nekk voiture climatisation di oto yu baax daal yoo xamante ne ni andi nañ ko pour askan wi. ñoo ngi ñaax askanu Touba nag ndax leen yàggoon na bëgg mooy oto yu baax yoo xamante ne ni dina leen yóbbu ñuy tukki ci jàmm ak dem ci jàmm ñëw ci jàmm moom oto yi sax duppi na turam ndax oto yi ñoo ngi ko tuddee yoonu jàmm ñoo ngi ñaan population bi ñu xam ne. andil nañ leen oto yu baax yu confortable ñoo ngi ci gare routière bi heure bu ñu ñëwee 24 sur 24 bu ñu ñëwee ci garage Touba garage bu bees bi dinañ ko fa fekk. dinañ leen yóbbu ci jàmm chauffeur yi formé nañ leen ñaax leen ñu ànd ak yar ak i teggin ñoo ngi ñaan client yëpp daal ñu ñëw fekk leen ci gare routière bi garage Darou Mousty tam am na fa Touba ak Saint-Louis ñi nga xam ne jëm nañ boori Louga ak Saint-Louis ñoom tam bu ñu demee garage Darou Mousty dinañ ko fa fekk. fi mu nekk nii moom. client bu ne mën naa voyager tranquillement en toute sécurité ndax andil nañ leen oto yu baax yu confortable ku jëm Dakar Saint-Louis Louga ak fépp foo jëm ci réew mi andil nañ leen oto yu baax yoo xamante ne nii comme ni ngeen ko gisee ci vidéo yi oto yooyu ñoo ngi ci dëkk bi bëri nañ fi lool bon na képp kuy voyager am nga possibilité pour voyager tranquillement waaw njëg gi tamit xeewale na ndax Dakar ba Touba 5000 francs lañ leen ko fixeel 5000 francs nag ku ci jógee boo yoree say nañ la si defal ndimbal ndax formé nañ ña fa nekk ñaax nañ leen tam pour ñu dimbale askan wi ndax dimbale askan wi rek moo tax ñu indi fi uh, oto yi. laa tudd nekk vice président regroupement gare routière bu Touba topp si président IDICA président national des transports routiers. Euh, lii lu yàgg bëgg la parce que ku ñu xam ne oto yi transport yi bëri na si xam ne dañoo màggat am na si yoo xam ne ñi koy moo leen mag waaye nag yàlla dogal na ñu ànd ak sunu baay xaarim mi ak baay pap ak ñun ak sooy bu ñu ànd ak sunu kilifa gu ñuy wax Mbaye Amar mu jiite afti tëgg projet bu toll nii yëkkati ko teg ko suñu loxo muy oto yu bees tax yoo xamante nii ne zéro kilomètre la benn client yéegus dawagul fenn andi jox ñu ko teg ko suñu loxo ñu war kaa exploiter fii si Touba parce que ku xam na ne Touba client yi li fi nekk bari na mais nag pour ñu am oto yu mën a méngoog dëkk bi ndax Touba moom mooy deuxième capitale di Sénégal war naa am oto yu dëkk bi ndax dëkk seen Touba moom dara jomb ko lu ne dafa lu lu baax rek war na fay ñëw ba tax na nag ñu rayante ji nañ ba indi leen oto yu bees tàq yoo xamante ni am na climatisé am na sécurité tey it chauffeur si nga xamante ni ñoo yor oto yi ñaax na leen wax ak ñoom clients yi ñëw fekk ko gaaru ceer bu bees bi Touba Héliport bu ñëwee oto yi am na climatiseur lépp paas bi ba Dakar 5000 francs la amutu dugg benn oto naan dangay ngay làqatu si benn ruq wala da ngay dem si yenn oto ñu lay jël di la yóbbu di la agressé wala yooyu amatul oto yëpp identifié nañ leen ñu ngi taxaw si ay conditions yi normal di taxaw si gaaru ceer ba di dem foofu dem ba boo marisé waaw di dem Ziguinchor di dem Saint-Louis di dem partout au Sénégal ndax oto yi inter ñu ko joxee mais nag AFTU moo ko jiite ki nga xam ne moo jiite président moo jiite moo jiite inter moo jiite urée bi moo ñu ko jox mais nag yii moom inter urée la ñu ko jox pour ñu def ko.